tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo te mooy la li ñu tàmbali woon démb jëlee ko ci Cheikhul Xadim sunu yaakaar te mu jëm ci solos noppi noppi de dafa am solo lool ba Sëriñ Tuubaa day wax ci nax ju ne bu fekkoon ne wax xaalis la kon noppi di wurus nee na wax lum am am njariñ bu doon xaalis noppi di wurus kon wax lum baax baax noppi ndeke moo ko ëpp valeur moo tax mun a law kaana al kalaamu fiddatan la kaanat zukutu zahaba ba tey Sëriñ Tuubaa day wax ne na nga def noppi muy sa tontu bu fekkee ne lottu nga ci wax rek wala nga lottu ci tontu bu boobaa am nga tontu lu mat sëkk muy noppi ndax nee na bëri aana wax joo xam ne kat noppi rek mooy tontoom ij'alis sumta in ayita jawaaban rubba xawlin jawaabuhu fi sukuti arab yi dañuy wax ne nit ki mën naa damm ci tànk ñu tabax ko mu wér nit ki mën naa damm ci loxo ñu tabax ko mu wér waaye nee na nit bu dammee ci aw làmmiñ dootu wér te wax bal la bu xasee génn xamoo fan la jëm ah bu ñu demee itam ci Cheikh Ibrahima Fall làmp wax na wax ju am solo ci wax nee na wax moom juróom la nee na wax juróom la moom nga ci war a sàmmonteel ñoo ne ko yenn juróom mu ne mën a wax xam li ngay wax xam ñi ngay waxal xam fi ngay waxee nekk bañ wax loola yaakaar naa bu ñëpp doon def noonu di sàmmonteeg juróom yooyu kon wax du bari te jamono ji moom wax yi dafa bari lool te amul njariñ jamono jono nag ak lamu laaj a cheikh saalix radiallahu anhu yàlla na ko suñu borom dollee fayal am na ku ñëwoon ci moom di ko wax loo xam ne nii sax taalibe baaxoobu koo wax baaxoo baaku wax kilifa moo tax kilifa kenn du kenn du wax wax joo xam ne day niru lu koy digal wala lu koy tere wala lu koy yedd loolu bokkut ci sarti murid saadix na ko sëñ Tuubaa santaane ndax dafa ñëw ne ko sëñ bi da ngaa war di wax ndax sëñ mu Moussa daf daan wax sëñ fàllu daf daan wax daal di koy limal ñi ko jiit ku ne mën a daf daan wax ba agsi ci sëriñ Saaliw sëriñ Saaliw ci teggi ne ko hmm, sàllaaw de ku ko naroon sax de yow rek jar nga noppi ku naroon wax yow rek jar nga noppi kon jamono ji jamonoy noppi la ci lépp loo xam ne ni amulut njariñ ab jullit nañ góorgóorlu bu baax te sàmm sunuy làmmiñ sàmm sunuy cër ndax àdduna kat gàtt na gàttaay goo xam ne nii lu jar ay bakkaar xaju fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit dana wax benn baat rek ngir jublu ca reeloo ñami waxal bu dana ca xalangu ca xori sawara nangami at juróom-ñaar fukki at yaakaar naa na xalangu ci sawara nag ay seconde ëpp na ci waxuma la ak ay at te waxe yónnte bi moom du dañ kon nañ wàññi wax yi bu baax te jublu ci jëf yi di liggéey tey jaamu yàlla te téye sunu làmmiñ rawatina nag di wax ci deri nit ñi loolu dara jaru ko te loolu dafa mel ni mooy li gën a bari nañ ko wattandiku bu baax ndax amuluñu benn njariñ ñoo ngi santaat tey taat laal loxo mbokki jullit yépp